mi commencé ni yanaqidul bayu bima yadulu ala rida wa in bi muatatin wa bi biani mu ni jaay dina fasu e, ci lépp loo xam ne dafa ni ki jaay ak jënd d'accord nañ ci njaay mi donte ci joxante la wala ci baatu e, jaay léegi nag jaay al bayu e, ci langu arab lu mu titile mooy mubadalatu mali bil maal mooy nga wecce alal ci alal mooy nga jox ma xaalis ma jox la téere wala nga jox ma xaalis ma jox la leneen bu dee ci sariatul islaam mooy pas-pas la boo xamante ni li muy jur mooy weccook alal nga xamante ni dafay tax kenn ku nekk ci ñoom moom la sa moroom moomoon ala sabil misaal E, tawi sumano joxe junni ni jaayma téere bi nga jox ma téere bi ginnaaw bi ñu d' accore ci loolu léegi yow yaa moom junni bi man léegi ma noo moom téere bi loolu lay tëtale e, mu nekk moomel boo xamante ni te abit lay tëtale tamit mooy léegi téere booba man maa ko moom bu faw junni booba tamit yow yaa ko moom ba faw atteem ci sariyatul islaam mooy lu dagan te ñu sukkandiku ci la yàlla wax ni wa axala allahu yàlla moom moo daganal eh, jaay sukkandiku ci xadiisu ibnu amar radiallahu anhuma mu ne yonente bi salallahu alayhi wax na ni ñaar su fekkente dañoo jaayante kenn ku nekk ci ñoom ñaar am na droit xiyaar fekk tàqalikoo wuñ ci place boobu ci kanam dinañ ñëw wax lan mooy xiyaar Euh, bokk na ci li tax ñu daganal ko nag mooy aajee doomu aadama ci loo xamante ni amu ko mooy tey man soxla na téere te awmu ko ke soxla na xaalis te amu ko ma jox ko sama xaalis mu jox ma téere bi euh, parce que doomu aadama du lu soxla rek mu ngi nekk ci loo xam jaay nag am na ay euh, ponk ñetti ponk la moom mooy farata jaay Euh, ponk bu njëkk bi mooy albaa'i wal mustari il faut mu am kuy jaay il faut mu am kuy euh, jënd koo kuy jaay nag wala koo kuy jënd tamit am na ay sart yoo xamante ni moom la lislaam teg ci moom te dinañ ci ñëw kanam ñaareel ponk bi mooy kiy jaay bu amee kiy jënd am il faut mu am loo xamante ni moom la ñuy pas mooy li ñuy jaay ak li ñuy jënd kon tey kiy jaay am na kiy jëndee am na li ñuy jënd tamit il faut mu am ñetteel bi ci ponk yi mooy il faut kàddu am kàddu nag mën naa nekk xawliyan wala fi'liyan mooy mën naa nekk ci wax wala jëf kàddu gi mooy man la jaay ma euh, téere bi ci junni nga ma d'accord dinaa la ko jaay ci junni nga jox ma téere bi ma jox la junni wala mu nekk fi'liyan ma xam ni taykat téere bi junni rek lay jar ma ñëw jox la téere eh, ma ñëw jox la junni jël téere bi loola jaale boo xamante ni mu ngi amee ci fi'liyat léegi eh, jaay nag <coughs> ci biir jaay dafa am la ñu tudde alxiyaar mooy tànn mooy su njaay amee ba pare kiy jaay ak kiy jënd am nañ droit def xiyaar xiyaar nag mooy ndax dañuy wéyal njaay mi wala duñ ko wéyal ci biir xiyaar nag am na ay xeet am na lu ñu tuddee xiyaarul majlis bu dee xiyaarul majlis mooy kiy jaay ak ki jënd kenn ku nekk lam joxe am na droit jëlaat ko fekk tàqali ko wuñ ci place bi buñ tàqali ko ci place bi nag eh, amatuñ droit di jëlaat la nga joxe woon mooy li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni albayaani bil xiyaari ma lam yatafarraxa mooy ñaar ñiy jaay mooy kiy jaay ak ki jënd am nañ droit def xiyaar mooy ku nekk am na droit jël lam joxe woon fekk tàqalikoo wuñ kon li ñuy dégg foofu ci mafhum mooy buñ tàqalikoo rek la nga joxe ñàkk nga ko am na lu ñu tuddee xiyaaru sart bu ne xiyaaru sart nag mooy man la jaay ma téere bi waaye maa ngi ci sartal ci njaay mi woy ci weer bii nii nga ma ko jaay su fekkente ni gisuma si lenn lu yàqu dina moom téere bi bu si dara yàqoo nag dama lay delloo sab téere loolu lañ tuddee xiyaaru sart kon sartab njaay mi wér mooy ñu bañ gis benn yàqute ci biir weer woowu noonu eh, beneen bi am na lu ñu tuddee xiyaarul ayib mooy xiyaar boo xamante ni mu ngi ame ci ayub dina xaw niroog bi ñu eh, tuddoon sànq waaye boobu li eh, li koy tegtal mooy man la jaay ma portable bi mais saa ma si gisee sikk rek dama lay delloo sa portable nga d'accord ci loolu kon njaay mi sax sax na wante saa bu si ayib amee rek njaay mi da daal di fecceeku am na lu ñuy tuddee xiyaaru tadlis bu ne xiyaaru tadlis mooy tey nga jaay ko lu mel ni pompiteer fekk yi nekk suuf dafa yàqu ki nga ko jaay saa bu demee ba remarqué ni li nga ko jaaykat dafa am lu ci yàqu am na droit delloo la ko euh, jaay nag am na ay sart yoo xamante ni moom mooy tax mu wér bokk na ci sart yooyu mooy ataraadi baynal baa'i wal mustari mooy kiy jaay ak kiy jënd il faut ñu d'accord ci njaay bi <coughs> mooy kiy jaay il faut mu d'accord ni lii laay jaay kiy jënd d'accord ni lii laay euh, jënd tamit euh, bokk na ci liy wéral jaay ba tey mooy ki nga xamante ni mooy jaay wala mooy jënd mu mën a def tasaruf bu ne tasaruf nag ki man def mooy ki mën a soppar ñiku ci alalam il faut mu amee eh, critères yi mooy bu nekk baaleex mooy ku nekk ku ma sër mooy mu jot gént wala mu sax kawar foo xamante ni amu ko woon walla mu am 18 ans su fekkee góor la wala mu am 14 ans jàpp 15 ans su fekkente ni jigéen la beneen bi tamit kiy jaay wala mu jënde il faut mu nekk aqil mu nekk borom xel kiy jaay ba wala muy jënd ba tey il mu nekk xurraan mu nekk gor kon su nekk jaam njaay ma du wér eh, ba tey tamit dafay nekk rasit mooy koo xamante ni am na capacité xam ni lii may jënd nii la wala am na capacité xam ni lii may jaay nii lañ koy jaay bokk na tamit ci sàttu eh, jaay ba tey mooy kii jaay moom day moom li muy jaay walla mu taxaw taxawaay ko moom te mooy. moo wakiil la sama alal wala mu nekk wasiyu koo xam dañ ko dink alal ji wala mu nekk kilifa ki koy jaay wala mu doon xoolal ki koy jaay su benn ci amee rek moom mën na eh, méngoo eh, njaay mi eh, ba tey bokk na ci sartu njaay mooy ki nga xamante ni mooy jaay la muy jaay mu nekk loo xamante ni lu dagan la ci sariyaatul islaam kon su fekkee ne dafay jaay loo xamante ni dafa xaraam boobu jaay du fas mis comme ki nga xamante dafay jaay sàngara njaay moom fasuwul ci saraatu wala muy jaay mbaam xuux jaay boobu tamit ci saraatu islam wala muy jaay medd jaay boobu tamit fasuwul ci saraatu islam kon daal la muy jaay day nekk loo xamante ni dagan na ñu jariñoo ko ci sariya euh, <coughs> ba tey la euh, sart yi wéral bokk na ci la nga xamante ni moom lay jaay mu mën ko jébbale su pare waaye tey su fekkee dafay jaay ñu ko looy jaay mun damay jaay benn gëléem boo xam ne dafa rëcc te wóoru ko ba xam dina jotaat gëléem gi wala déet jaay moomu tamit fasul kon la muy jaay day fekk ne ko loo xamante ni mën na koo euh, jotaat euh, ba tey tamit bokk na ci sàrt yi wéral jaay mooy la ñuy jaay mu nekk loo xamante luñ koy luñ xam la luñ xam la waaye su fekkee luñ xamul la boobaa njaay bu wérum su ko nee kaam jaay sama tool bi nekk place te ki muy jaay xamul tool ba la fa nekk wala su xamee ne mango moo fa nekk wala yooyu xamul capacité la fa nekk boobu jaay ba tey eh, wérul ba tey na ci yi wér njaay mooy njëg gi mu nekk loo xamante ni lu ñu xam waaye tey su fekkee nekk na eh, dama lay jaay tool bi eh, ci loo ma jox bu dee ci loo ma jox loolu moom saraan dina ko nangul waaye su fekkente ni nekkul tax di lu ci paat boobu rek mu baax dañuy wax njaay moom wérul ci biir tamit am na eh, ay xeetu njaay yoo xamante ni dañ ko tere ci sanatu islam bokk na ci eh, jaay wala jënd ginnaaw nodd ak ñaareel bi am na ñu wax nodd gu njëkk waaye li gën a ci mësub imam malik mooy ginnaaw nodd ak ñaareel eh, jaay wala jënd ginnaaw nodd ak ñaareel ba moom lislaam bi koy fecc njaay moom wérum bokk na ci njaay yi nga xam ne dañoo tere dañ ko tere <coughs> mooy ab jullit di jaay ci kaw jaayu mbokkum jullitam mooy tey ma waxaale ba war a jaay ba jubboog ki may jaayal nga ko ni mën naa laa jaay lu ëpp lim lay jaay moom mu fecc ci njaay mi mu waroon a seq man dem jël jaay bi nga xam ne moom nga koy jaay loolu dafa ba tey tamit noonu la xaraamee jënd ci kaw jënd ak jullit mooy ma waxaale ba pare ak moom junni mu jox ma téere bi nga ko ni mën naa laa jox ñaari junni pour nga jaay ma téere boobu loolu tamit dafa xaram mooy jaay ci kaw jaay wala jënd ci kaw jënd bokk na ci e, jaay yi nga xamante ni dafa xaram tamit mooy nga jaay loo xamante ni jotoo ko te wóor la ba xam di nga ko jot wala e, déet loolu tamit bokk na ci jaay yi nga xamante ni dafa xaram e, bokk na ci jaay yi nga xamante dafa xaram tamit mooy ngay jaay meññeef goo xamante ni ñoragul wala goo xamante ni meññeegul tey ñu toll ci jamono boo xamante ni lu mel ni mango amul nga ko ni kaame jaay la sama tool bi su meññee nga jël ko loolu tamit eh, dañ koy dàq ci sariyaatul islam kon njaay bi nga xamante ne dañuy nangu mooy njaay boo xamante ni dafa nekk njaay boo xamante ni xam nañ kem bi ni toll ba pare xam njëg gi tamit ni mu eh, toll kon bunt bi ñuy commencé mooy bunt li nga xamante ni moom mooy eh, jaay nga xamante ni ñoom ñaan ñëpp dañ ci d'accord ci ki jaay ak ki nga xamante ni dafay jënd ci biir téere bi dañuy dugg di yaatal ci yi nga xamante ni moom mooy wéral jaay ak sart yi nga xamante ni mooy tegu ci kiy jaay ak sart yi nga xamante ni mooy tegu ci kiy jënd ak sart yi nga xamante ni mooy tegu ci li ñuy eh, jënd eh, dinañ gën a dugg tamit ci yi nga xamante ni moom lañ tere ci wàllu eh, jaay dinañ gën a dugg tamit ci li nga xamante ni moom mooy xiyaar mooy tànn ak wéyal njaay mi wala ñàkk wéyal njaay mi wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa sallam إلا الله لا إله إلا الله